à votre fameuse feuille dañoo ne situation bi dina metti diggante 2023 ba 2025 et da ngeen espérer 2025 avec l'avènement du gaz et du pétrole di ngeen wàññi les tarifs euh, de de de de l'électricité mais dites-nous en face les yeux dans les yeux que état dina rocc subvention bi dinañ leen appliquer la vérité des plus des prix mais dina am un changement en 2025 dites-nous cela moo gën ngeen ñuy insister sur des habitudes de consommation xam nga may mun a nee la politique énergétique d'un pays qui se veut émergent mënul nekk maintenir la subvention et je rappelle loolu nañ ko wax avec le président Macky Sall pour la première fois de 2014 à 2016 on a annulé la subvention hein. de 2014 à 2016 la subvention était nulle donc moo tax ma ne la su nit di élaborer politique énergétique tey xool lan lay viser esa ça ça été clairement dañ ko leeral ci PSE ne fii lañ bëgg a jëm maintenant da nga koy fàttali toujours sénégalais yi luñ luñ ko doon wax bu muy soog a ñëw courant amul. dafa cher waaye ñenn ñi daan nañ ko wax et ñooñu mooy classe moyenne bi ngay wax nii ñun bu amoon sax pare nañ ko fay ñun bu courant amoon sax pare nañ ko fay waaye dafa amul mais fu ñu toll nii may mun a tey alhamdulilah kenn waxul ne courant amul léegi kay ñun xam nañ nag ne dë problème la woon benn bi réglé nañ ko benn bi c'est notre responsabilité beneen bi mënaguñ ko régler parce que pétrole ak gaz bu ñuy xaar Sénégal ñëwagul te contexte international bi aussi permettre ñu ñu am ay prix combustible yoo xam ne dinañu permettre ñu wàññi. mais moo tax ñu ne léegi nan la ñuy def. mais même bi tey il faut nga nga nga gin nañu tuuti bi ñu bi ngeen démarrer seen investissement bi dans le secteur de l'électricité état bi dafa densifier dafa yokk les capacités. tey yéen a ngi ci 1700 mégawatts vous confirmez. 1789 mm-hmm. exactement. 1789 mégawatts. ngeen yokk seen capacité de production ngeen construire ay centrales yu bees ngeen am un groupe de partenaires yu leen di fournir de l'électricité ngeen régler la question de l'accès au combustible pourtant ce sont des investissements lourds lii yëpp def ngeen ko te citoyen bi yëgu ko. ngeen améliorer la qualité de distribution de de l'électricité te taxul citoyen bi supporter la la la la la la hausse qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on maintenant que Sénélec a bien investi maintenant que les capacités de production ont augmenté maintenant que vous avez sécurisé euh, la question du combustible et tout maintenant que Sénélec sax am na moment boo xam ne euh, Matar Cissé dafa commencé woon di communiquer il était DG Sénélec euh, sur des euh, sur des bilans positifs pourquoi est-ce que ñun ñu war a commencer souffrir alors que souffrir ñu souffrir ñu woon ba ngeen di lancer tout sa tout sa tout ce tout ce process là. non mais mun a man duma ko tuddee souffrance ndaxte bu ma xoolee. période boobu ngay wax qualité de service bi nga amoon amoo ko léegi bu ma xoolee jamono boobu l'in l'infrastructure électrique état bu mu nekkoon amatuñ ko léegi maa ngi doon waxtaan ak sax benn directeur général mu ne ma waaw yow léegi nag ñoo yóbbu préhistoire parce que centrale yu mu fi fekkoon yépp léegi centrale yooyu indi nañ yeneen centrale yu bees yoo xam ne ñoo gën a moderne parce que xam nga mais mun a il faut aussi ñu d'accord que kii industrie électrique c'est une industrie boo xam ne dafay laaj moyens yu bëri et c'est là où on devait s'apprendre foofu la ñu waroon insister davantage pour nit ñi xam te gis nga li ñu liggéey si wàllu boobu intéressé wul kenn ba fu mu toll nii mun naa la woon ay lettres ngi nii yu ma jot des pays un peu partout en Afrique ñu ngi ñëw di xool ce qu'ils appellent le modèle sénégalais xam nga nu ñu def ba yegg si fa intéressé wul kenn fu mu toll nii te loolu dina bokk ci li nga xamante ne nii buñ deful ndànk mooy lu ñu yàgg di dal mooy ñu defar ba pare après ñeneen ñi ñëw jël dem def ko heureusement que cette fois-ci ñun lu ñu def indil nañu résultat xam nga même na bu ñuy ñëw parc de production bi man maa ngi fi nekkoon foofu yàlla def na man si loolu laay liggéey depuis bu ma duggee Senelec ba léegi gis nga machine yi dañ daan bugg a paan sax ñu kala kala ji ko mais mu continuer dox ba ñu passé période 19 heures 23 heures mais centrale yooyu yëpp léegi génnee nañ leen nañ parc bi da nga daan am paan si benn koñ mais doo ko mun a am beneen circuit boo xam ne foofu ngay jaar pour mun a kii fu mu toll nii xoolal Touba Touba man bu may bu may dugg Senelec 98 3 mégawatts lañ doon yóbbu foofu noonu si si màggal gi dañ daan jël juróom-ñetti weer wala juróom-benn weer Senelec yëpp ay mobilisé wu pour xool nan la ñuy yóbboo fu mu toll nii. tey sécuriser nañ alimentation Touba fii ak juróom fukki at fu mu toll nii la partie sud dañ fa daan dem mais centrale ñoo doon daw les îles dañ daan am deux heures trois heures de courant par jour léegi loolu yëpp réglé nañ ko dañu def désenclavement électrique total du pays c'est-à-dire autoroute de l'électricité yegg na fu nekk capital régionale boo dem def nañ fa benn post de transformation c'est-à-dire aujourd'hui on a pose les bases d'une société électrique moderne léegi am nañ parc de production bu doy am nañu réseau bu doy mais après loolu président dafa ñëw yokkal ñu beneen point nañu équité territorial ak justice sociale équité territoriale mooy kële na leen nekk fële na leen bërki démb dem naa kër Babacar mbay dans la commune de Fandène mais yóbbul nañ leen électricité ñooñu ils sont le réseau interconnecté de Sénélec ils vont recevoir les mêmes factures te femmes yi lu ñu ma wax ñoom lu ñu daan dépenser pour seen doom yi mën a jàng lu ñu daan dépenser pour pour seen machine wol yu fa daan nekk ci carburant mais bu ñu leen ko calculer tey ñooñu ay économie la ñuy def dañuy gañe xaalis et et ça loolu moo war a nekk Sénégal ñu xam ne ñii mënaguñ dem ñii soxla nañ ñu xool nan la ñuy defee ba ñëpp xaj muy sa Sénégal de tous ak sa Sénégal pour tous loolu bu ñu ko fàttee ak lu mu métti métti ñun fu mu toll nii Sénélec loolu lañ nekk di def nan la ñuy fexe ba ñii nga xam ne ñu ngeeg ñun yàgg nañoo ñun ñu nekk ak ñun nan la ñuy fexe nga xam ne ñii ay sénégalais lañ comme ñun di ñu xaar bu yàgg ba léegi. nan lañ leen di boolee ci groupe bi 1648 localités la fi président fekk en 2012 aujourd'hui on est à plus de mille localités xam nga le programme d'investissement de Sénélec pour les deux ans qui vont venir on va mettre plus de 4600 localités on va électrifier plus de 4600 localités mais même loolu yëpp suñ ko defee te terewul ñi daan am courant ñu ñu daan couper pendant quatre heures cinq heures de temps léegi defatuñ ko donc ñu ngi pousse léegi nag xam nañ ne mooy lu ma la wax dina métti mais léegi est-ce que dañuy war a fexe lâcher ñi nga xam ne mënuñu wala nañu jéem a fexe développer esprit de solidarité pour boot ñëpp ànd ak ñoom foofu la cette nouvelle culture énergétique amee solo si fu ñu jëm. alors si je comprends bien densifier ngeen parc bi. Euh, moderniser ngeen euh, densifier ngeen capacité de production bi moderniser ngeen parc bi euh, étendre ngeen le réseau électrique le maximum possible maintenant il faut que mu am équité donc ñi nga xam ne amuñu courant il faut ñu am courant et donc il faut que ñi mën supporter coût bi ñi nga xam ne localité yi nga xam ne amuñu courant il faut ñu am courant investissement yi ngeen def pour que ngeen poursuivre euh, il faut que muy jóge ci chiffre d'affaires u Sénélec état mënul continuer di dugal xaalis état mu ne donc pour loolu am il faut que yenn sénégalais yi mën tuuti ngeen solidaire mais moi j'ai envie de vous dire maa ngi xool le budget deux mille euh, deux mille vingt trois pourquoi nous devrions être nous consommateurs les seuls à être solidaires pourquoi état bi nga xam ne Euh, dafa dafay subir pression FMI ngir euh, arrêter subvention yi ngir wàññi déficit euh, budgétaire am pourquoi état moom du commencer par être d'abord solidaire en quoi faisant maa ngi xool le budget 2022 présidence de la république bon wàññeeku na de un milliard mu ngi nekk ci 71 milliards primature moom son budget dafa wàññeeku bu baax a baax primature balaa ñu koy euh, dindi mu ngi woon ci 48 milliards cette année là mu ngi ci 29 euh, milliards mais man waxuma présidence de la république sax parce que présidence de la république dafa am beaucoup de services yu dépendre ci moom donc seen budget ci ñoom la dépendre primature wàññeeku na mais pourquoi est-ce que assemblée nationale euh, budget mu yokku mu nekk tey cette année là 20 milliards te budget mu ngi nekkoon ci 17 milliards pourquoi du ñu dem def rationalisation foofu wut fa for fa 10 milliards pourquoi est-ce que au conseil collectivité territoriale mi nga xam ne euh, institution la boo xam ne on se demande même à quoi ça sert pourquoi son budget yokk dafa mu ngi ci 8 virgule 5 mu ngi ci mu ngi woon ci 8 virgule 5 milliards cette année mu ngi ci 9 virgule 1 milliards waruñoo ñooñu waruñoo solidaire pourquoi est-ce que conseil économique et social sénégalais yépp buñ ko buñ ko dindi woon ñu d'accord Macky Sall ñëw delloo si ko waat alors que le deal c'était que ñu dindi ko et il avait il avait il avait promis pourquoi ñu koy jox 7,5 milliards pourquoi est-ce que ces institutions là mënuñu leen bu ñu dindi woon entre conseil économique ak 16 euh, 8 9 milliards ak 7 milliards cinq euh, presque on est à Euh, seize milliards euh, on est à seize milliards assemblée nationale budget mi yokku présidence ñu jéem a wàññiwaat parce que y une politique de rationalisation une réforme boo xam ne lancé nañ ko en 2019 pourquoi l'État ne commence pas la solidarité euh, voilà par ses services et par ses institutions budgétivores mais même na ces institutions yooyu ngay wax ay sénégalais ñoo fa nekk clientèle politique. non bàyyil rek ba yeggali <laughs> Maymuna ces institutions non xaaral politique. Maymuna ces ah. institutions yooyu ngay wax ay sénégalais ñoo fa nekk. clientèle politique. waaw may ma ma yeggali te sénégal yooyu nekk fa ay clients Sénélec lañ. clientèle politique. bàyyil ma yeggali et clients Sénélec ah. yooyu ngay wax ñu ngi ci tranche boobu noonu ñuy laaj ñu def solidarité kon ñooñu noonu nekk fa di liggéey di am seeni salaire aujourd'hui nekk client Sénélec. peut-être bokk nañ ci troisième tranche bi nga xam ne am nañ mooy ñu ne leen d'accord yéen a ngi fayeeku mais léegi ñëw leen participer à l'effort ñu ngi koy def. xam nga xam nga la moo tax. est-ce que parce que bon dama la bëgg wax exemple boobu benn la que ñooñu fa nekk ñu lay am fa salaire bokk nañ ci ñi nga xam ne ñëw nañ participer à maintenant am na yoo xam ne mënuma ci dugg peut-être ministre des finances mais lu ñu war a moytu mooy souvent ñun. loolu lañ doon jàngal en physique wala en mathématique dañ naan la l'optimum local wala l'optimum global parce que exercice bii nga def nii mënul nekk arithmétique dagg tëj dagg tëj il y a des conditions yoo xam ne booy optimiser dafa am ay données d'entrée incontrôlables yoo xam ne mënoo ko changer léegi ñun suñu bëggee ñëw taxaw parce que après ñooñu waxuma ñaata sénégalais ñoo fa nekk bu ñu supprimer ñaata emploi lay doon. c'est pas des emplois. mais mais mais mais, mais c'est des salariés qui sont là-bas ce sont des salariés qui sont là-bas. conseil économique social et environnemental les corps sociaux dañu leen fay représenter je, je donne un exemple Boy Aj le président du CNP. Oui. il est membre du conseil économique. dafa soxla salaire boobu. daf ko soxla. le représentant de la moom ban non le de la CNES. dafa soxla euh, salaire du conseil économique. Euh, le représentant du forum civil soxlawul salaire du conseil économique. am na ñeneen ñu fa nekk parce que ces structures là l' état du Sénégal euh, nu mu tudd Macky Sall moo ko dellu si delloo si waat ngir caser sa clientèle politique da ngay dégg benn waa APR bu amul dara mun ne la mais buñ ma yóbbu woon conseil économique sax ma am dara ngir caser une clientèle politique. bu ñu ko reyee woon de l'armature institutionnelle du Sénégal du ñu wàññi dara assemblée nationale elle est utile ok on ne peut pas s'en passer primature on ne peut pas s'en défaire présidence de la république supra supra utile mais 16 ak euh, HCCT c'est destiné pour caser une clientèle politique ak pour euh, faire taire Euh, voilà certains ñoo xam ne ils sont forts pour mettre la pression à l'État du Sénégal muy benn beneen bi y a beaucoup yoo xam ne ay budget cinq six milliards qui na servent qu'à caser de la clientèle politique le président dafa waxoon dina réformer dina dajale agence yëpp euh, jël yëpp ëmb ko ci DER éliminer yeneen yëpp euh, ngir def rationalisation gars yi yuuxu fettaxu président dellu ginnaaw ci kii boobu mais na état du Sénégal dem tibb foofu te mu maintenir la subvention sénégalais yi bañ a yëkk euh, la nu tudd la la la la réalité des des, des prix de l'énergie parce que du Sénégal rek tout à l'heure j'ai vu que en Angola il y a eu des manifestations violentes euh, Angola yokku nañu Nigéria yokk nañu Congo yokku nañu Côte d'Ivoire yokku nañu parce que euh, les États mënatuñu supporter la hausse des tarifs au niveau mondial parce que les guerres qu'il y léegi jot pétrole bi yombatul mais supprimer ces institutions là bi tey non mais mais mun a xam nga dans toute chose dama ne la da ngay xool parce que action boo posé da ngay xool pérennité bi xam nga institution yooyu noonu ngay wax sans pour autant ma dugg ci politique bi bu baax da ngay bàyyi nga invité ma beneen moment. ñu wax politique ba doyal parce que ren man tey jii lu ma soxal mooy su ma génnee fii sama client yi jàkkaarloog man relation bi ñëwaat ba ñu normal ba ñu xam ne ñun bépp action bu ñu teg pour ñoom lu leen jëriñ lay doon. xam nga loolu ngay wax yow wax nga ko c'est-à-dire le réajustement tarifaire la c'est pas spécifique au Sénégal à Sénélec beaucoup de pays l'ont et moi je peux témoigner je peux témoigner que su dul woon la détermination du président su dul woon la détermination du président kon réagissement bi nu am da ko doon dépassé bu bëree bëri bëri bëri mais moom moo ne lii duma ko mun a def pour le moment sénégalais yi àttanuñ lii ngeen xalaat parce xam nga boo nekkee sa machine ñu ne la defal lii nga def mun na la génneel solution bu nekk mais solution boobu est-ce que c'est adapté est-ce que c'est supportable est-ce que c'est sustainable comme on leur a pour les populations sénégalaises loolu moo nekkoon et c'est là où moom il a beaucoup pesé pour diir que nañ dem fii léegi nag mooy lu ma wax situation baa ngi nii dans beaucoup de yi ñu ngi yokk ba nit ñi mënatuñ koo supporter ñu kii Sénégal waroon nañ toll foofu mais président ne lii mënul nekk léegi nag man ma ñëw taxaw jàkkaarloog suñuy client ne leen état bi def na effort bu mu mën Sénélec def na effort bu mu mën mais gis nañ ne si yéen am na niche boo xam ne war nañ mun a ensemble ñu d'accord ñu dimbale leen si ñu def ko ce sera l'effort di consommateur te niche boobu ñun xam nañ si parce que may mun a lu ma la wax moo si nekk ñun suñu équipe yi chaque fois bu ñu déplacé woo dem seeti client waxtaan ak moom expliquer ko client bi gis na ne lii ñu ko expliquer ndekete nu mu doon consommé mun na nekk si même niveau de confort tout en gérant ses appareils foofu la ñu invité tey jii nii le client de Senelec vers cette nouvelle culture énergétique vers nouvelle culture bi nga xam ne face à l'abondance de l'électricité ma xam nan laa koy utiliser ba sama poche attan ko exercice bi loolu kese la